tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale dundal weeru koor sunu dundal weeru koor tey ñoo ngi ciy indi tomb bu am solo bu am ahamiya ci lislaam sunu borom tudd ko ci alxuraan miraaran ngir fonk gum ko fonk ak yitte jum ko jox néew na fu muy digalee julli ak joxe asaka te tegu ci tomb boobu muy saraxe ak infaq fi sabilillah maanaam dépenser sa alal ci yoon yàlla kon ci tomb boobu la ñuy ñëw tey waxtu yépp la baax waaye rawatina bis yi ñu toll ak weeru tedd wi ñu nekk di shahr ramadan al mubarak nga xam ne suñu borom mooy fayal boppam te du natt du peese day tibb rek di la jóor kon nag ku yàlla jox wërsëg bu ko xeeb lu mu néew néew lebal ci yàlla ndax yàlla kat nee na lépp lu ngeen lu ngeen dépensé ngir man danaa ko wuutal danaa ko remplacer te yéen ni ngeen toll ngeen di eh, dépensé te man ni ma toll laay remplacer wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa mu ñëw ci alquran lu bare bari nag buñ demee ci sooratu ibrahim aaya fanweer ak benn suñ borom tabaaraka taala day wax yonent bi naa ko neel gaay way gëm ñi nag ñoo tax muy wax nañuy taxawal julli tey dépensé seen alal ci yoonu yàlla lu nëbboog lu feeñ lu jiitu ñuy àgg ci bis ba nga xam ne ni yaxantu ak commerce ak dajale alal ak business amu fa muy bis penc uh, qul li ibaadiya allazina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa min qabli ay atiya yawmun laa bay'un fiihi wala xilaal uh, wax na ko lu bare bare yaa ayyuhal lazina amanu anfiqu mimma razaqnakum suuratu baqara aay ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent uh, aay yooyu bu ko doon wax du jeex dafa bari ci alxuraan lool ñëw ci xadis yonante bi sallallahu alayhi wa lu bari loo xam ne du jeex waaye bu ñu ci njàngaleem sëñ Tuubaa ci Masaalikul day wax ne saraxe ak dépenser sa alal ci yoon yàlla de yooyu ñaar ñoo dajale yiwi àdduna ak alaaxira ama tasadduqu mahal infaaqi fa jamahal xayraati bi ittifaaqi nee na ngëneelul saraxe ak dépensé sa alal ci yoonu yàlla bari na bari goo xam ne ni mënees su ko takk fadaailul infaaqi wa tasadduqi kasiratun jiddan ala al muttafaqi nee na ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne sunu borom tabaraka wa taala de nee na bu ñu demee bis penc yi ca bis ba nga xam ne dafa bari njàqare lool ak tiitaange nee na benn dogu mburu rek wala benn ngëbu tàndarma bu nit masana masoon a sarax ab miskin mu jariñoo ko suñ borom dana ci tàbbal àjjana ñett ñu ne ko kan ak kan mu ne borom kër gi ak soxnaam sim ko digal ak seen mbindaan miñ ko def loo nga xam moom lañ ko yónnee wa fil xadiisi anna sal jalaali yudxilu yowmal gammi wal ahwaali bi luqmatil xubsi wa qabdati tamar wa kulli ma yanfaxu miskinan xadar salaasatan jannatu fa yadxulun fiha bi idnin min ilahi alamin hum saaxibul bayt allati amara bih wa zawjatun muslihatun faltantabih wa qaadimun yaqdimuhum wa kullu saa tafadulul karimi rail maqza nee na benn sarax rek sunu borom da ci fegal nit ki juróom-ñaar fukki deeyin yu ñaaw yu ko waroon a mën a dal sadaqatun waaxidatun qad tadfau sabxina mitatan min suui fau nee na sarax day fekk day fay merum yàlla di fay sawara wa tudfihu al ghadaba wal xataaya itfaa maa i naari dil ataaya nee na kiy saraxe bu ëllëgee ba suñ borom di àtte jaam ñu nekk ci penc ma nekk ci xat-xat yaak njàqare laak tiitaange ak tàngaay ba suñ borom da koy woo daal koy keral ci ron aras gu neex mu nekk ci ay xéewal nga xam du fekkee coow laak rëg-rëg jaak métti métti yaak njàqare laak la bu ñu àttee ba nopp moom mu teggee noonu dem àjjana faa'iluha yajlisu fi dhillin laha qabla qadaa'il xalqi azim fadlaha nee na sarax day day day saafara feebar li gën a gaaw ci saafara tawat mooy sarax waaye nag waxuma saraxi ay bay yu ñuul ak yooyu ñuy dégg li nga xam ne dafa laal ci bokkaale déedéet sarax danga koy def ngir yàlla def tawassul sa diggante ak sa borom mu fegal la dara wala mu ñoddil la dara boo ko defee da nga koy daldi gis waaye nag da koy sellal sa diggante ak sa borom bu ci dugal kenn moo tax mu ne wa annaha biha tudaawal marda wa taxfara zunubu nihmat xarda te it nee na day tax sun borom gaaw laa jéggal say bàkkaar nee na sarax day yaatal wërsëg da cay def barke day sécuriser sa alalit ba du yàqu maanaam ak alkande wala ak yàqu du ca dugg te it sëñ Tuubaa daana wax ne addee day yi muy def ñett ñett yi ci gën a tuuti mooy yii te it addee dañ koy dugal ci al infaq fi sabilillahi maanaam dépenser sa alal te yàlla rek tax nee na addee ñett yi gën a tuuti ci li muy def moom mooy fa dara nekkul mu def fa dara fu lu tuuti nekk mu bari lu ko fu lu bari nekk it mu barkil ko te koo seen muy dox kenn la ci ñett ñi benn amul dara bëgg am wala mu am tuuti bëgg mu bari wala mu am lu bari bëgg mu barkeel ndax barkekat lu mu génn kenn dootu ko mën a jariñoo bari ana borom alal joo xam ne ay milliards la yor waaye as feebar la ko yàllay teg feebar bàyyi lekk alal ja lekkaale waaja nga xam ne waaja du ko jariñoo ay mbokkam duñ ko jariñoo yàlla na ci yàlla musal day tax bu ëllëgee bu la yàlla audité da koy woyofal maanaam sa règle ak sa audit bu ñuy comptabiliser sa alal yàlla da koy woyofal lool ndax la ci daan génn sarax tem tax nee na sarax it day diisal misaan maanaam balance yi nga xam ne ci la ñuy peesee say jëf bu ëllëgee ñu ci tegee ab sarax boo ma sa def danaan kik maanaam day am pois bu mag a mag a mag moo tax mu ne wa saatu risqi wa fiha baraka maalin walam nu min jamil mahlaka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 in uridu illa al islaaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu